mbokk yi di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias benn waxtu jot na ñu ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi li ci gën a fës takk der yu sakkan ya taxaw ca Petersen marchand ambulant ya feggoo ca weneen wàll wa jàkkaarloog ñoom ku ca nekkoon di xool sa morom tension ba tar ca boobee béréb loolee nag gannaaw déguerpissement yoo xamante ni mairie bu Dakar Plateau kon sumb na ko ay magasin yu ñu taal foofu commerçant yi nag ña nga taxaw mer ba fut fu ci Alioune Ndoye ak kii di Khalifa Sall muy wàllu mat histoire géographie wala science ca chapitre yu bari euh, ndongo yi nee nañ boobee programme kon àgguñu fa ba tax na tey jii euh, candidat BFM yi nekkee fële ca CML Mamadou Ndiaye ñoom euh, tiitaange la ñu def waxtu nga xamante ni ñu ngi dëgmal kon ay examen lu ñuy dëgmal soreetul dara mu di kon weeru ko koor gi xool nañu kon waajtaay yi fu mu toll rawatina ci biir supermarché yi gis nañu ni ñu ngi koy waaj bu baax ak ay wàññite ko waaye client yi taxagu leen a bari ñu ca bari kon dañuy romb ñëw xool demaat ba tey nag teewut ña ngay dundee eh, yaakaar eh, des na ci eh, dellusiwaat it waaye dakit beneen reportage ba tey jii ci lu soxal weeru koor googu lu jëm ci li nga xamante ni nag moom moo di dossier que tey jii ñu ngi ko jagleel njëgu ko luyaas bi at ak genn wàll ba ñu jëlee kon ab loi ngir wàññi ko terewul nag gis nañu locataires yi ak propriétaires yi ñu nga xamante ni nag ñoom ñooy yëngu ci wàllu wi népp na ñeenti junni kalaat nañu ko euh, Momar Ndao ne bis bu ne lu toyo ci euh, juróom-ñaar danañu lijjanti yooyu dossier bisub tey jii dana ñu dalal ak ganit Abdou Latif Aïdara euh, lay wuyoo jàngalekat la ci centre d'étude stratégie kon muy waxtaane mbirum président Omar El Béchir gannaaw mandat international ba ñu tegoon ca moom ñu bëggoon nag ñu jàpp ko fële ci Afrique du Sud mbir mi mel ni antiwul ndax jël na roppalaan dellu cam réewam tolluwaay li Chérif Dia dina ci ndey leeral ponk yaa nga kon nis ko kii yi dellu di rafetlu kon seen ànd ak télévision Futurs Médias nañ leen ko waxee takk der yi ci lim bu takku ña nga taxaw fële kon ca sen marchand ambulant it taxaw ñi di xool seen boutique ya ñu yàq ñeneen ñi kon taxaw di xool kon fan la yëf yi di mujjee loolee moo di situation bi am gannaaw déguerpissement boo xamante ni mairie Dakar Plateau kon euh, moom moo ko sumb ñoom euh, commerçant yooy nag joxoñ nañu ci baaraam euh, maire ba Alioune Ndoye waaye it Khalifa Sall Ndakaaru ni ñoom lu jiit njaag ñooy njàkk euh, ci bii situation maire bi sax euh, mi ngi ci euh, ligne bi monsieur le maire maa ngi lay nuyu. monsieur le maire Alioune Ndoye kon tey jii xeer ngeen foofee ca Petersen mel ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçant it ña nga fa waxtu wi fan la boobee déguerpissement toll ndax gis nañ ne am na ay magasin yu ñu taaloon ñu jiiñ leen ko nag ba tax na daal mbir mi ñu ci bari fi ñu toll ni ñu ngi bàyyi xel ndax commerçant yi mer nañu ba futt tey jii lan ngeen xëyee foofu waaw soxna si foog naa ni information war nañ ko jubanti kenn demul pour biir ay cantine wala ay magasin donc ay commerçant déguerpissement bi li mu concerné woon li mu wundoon mooy ñi ne ci tali bi lal ci tali bi ñooñu leen doon jële ñooñu nag ñoo mer sendi seen i xeer taal seen i a ba loolu am ay magasin yu mu laal waaye bu ngeen fa demee jàll ñu dindi di ngay gis laaluñu magasin donc loolu jàpp naa jubanti Euh, vendredi euh, samedi ba léegi nag dé déguerpiruñu parce que bi ñu ko tàmbalee problème yooyu am police moo jël mbir yi en mais laaj ñu taxawaay boo xam ne war nañ ko am taxawaay boobu lañu am ba tey li ma wax ak nii léegi nag bu dee ndaw yi dañoo woote léegi naa ñi ñu ñëwoon centenaire ñi ne ay caare yëpp la ñu woo pour ñu ñëw jàmbaral ni loolu nag seen responsabilité la ñun maire yi en tant que institution responsable yi nga xam ne ñoom lañ leen waxal boobu ba léegi te ñu sumnu mbir mi eh, organiser ko danañ leen yóbbu ci yoon parce que euh, lakk gi am ak problème yi fi am seen responsabilité la donc loolu jar naa en tout cas firndeel da ngeen jàpp ni ñu demuñu pour désencombrer cantine benn cantine jox képp ko euh, avertissement wala sommation ñi jël avertissement wala sommation mooy ñu lal ay table ci kaw tali bi mu nekk un véritable problème de sécurité nga xam ne Petersen du marché seen jaar routière la loolu jar naa itam firndeel maire yéen a ngi koy jiiñante ndax ñoom jàpp nañu ni yéen yéen a yàq seeni i bagage yoom ngeen a yow nee nga ñoom seen responsabilité la boo waxee noonu kon mën nañoo njort ni ñoom ndàmpaay li ñuy laaj yéen du ngeen leen ko ko jox waaw xam nga dama ne euh, ñi ñi yàqule tey fi mu ne nii tey c'est pas du responsable bi ñi yàqule mooy ay commerçant notamment bu ma jumul ay chinois yu fa nekkoon ñooñu lakk yi ñu lakk seen i yi yooyu ba mu jël ci matt yi seen yi ñu daan teg moo dem ba laal magasin yooyu xamaguñu ñaata la parce que boobu ba léegi ñoom ñuy taxawoo naan dañuy jàmbarloog nit ñi nit ñi mënuñ def seen liggéey ci xel mu dal xamaguñu lan la waaye nag seen responsabilité am na parce que bu dee dëkk bi léegi ku mer rek nga ne damay taal wala damay toj euh, boobu police a ngi garde mairie plateau parce ñoom dañuy ne dañuy taal mairie plateau kon xam nga loolu dëkk bi dañuy xamatul mais kan mooy kan mënuñuy jël ay institution ndax da ngay menacer institution wala da ngay teg nit ñi ci fitna liggéey la nit ñi di def defuñu leneen yàqaluñu kenn waaye nag Euh, li ñëpp bokk itam il faut ñëpp bokk ko loolu il faut ñu commencé dugg ci xel yi euh, boo mere nag tàllu yàq yëfu jàmbur mais dañ lay yóbbu ci yoon. monsieur le maire Alioune Ndoye yaa ngi naan ñoom euh, marchand yooyu commerce ambulant yooyu woo nañu ay renfort ci yeneen i marché ndaxte jàmmu leen ak tiitaange ci lu jëm ci seen kaaraange. waaw xam nga bu la bu la man de citoyen la te maire la samay agent bi ma police ñaanee samay agent jóge ko pour ñu mën a def seen liggéey ci jàmm ak agent jóge nañu te loolu li ma lay wax nii depuis samedi la tey ñu ngi lëndi bu dee nag am na ay ndaw yu jóge su kenn xamul jël seen i jaasee yu naan dañuy jàmbarloog nit boobu nag seen responsabilité la ñu jël waaye kii di daam Badiane di responsable boobu kii di Khadim Babou kii di Ibrahima Niang dañu woo ci yoon pour jël seen i responsabilité ñu lay gërëm di la sant monsieur le maire ni mu ko waxee dinañ jël kon seen ay responsabilité wàllu ko yoon atep tey bu njaay kon ñu ngi koy wéyal ba tey ji ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy seede yi ñooy défilé rek ci baar bi ngir saytu ba tey ji alalam ji ñu koy toppee ñetti milliards waaye it ca liggéeyam noo xamante ni jàpp nañu ni jëfee nañu ko yoon gis ni xëy na du yoon rawatina ci ay doomi jiitleem ña nga kon tey ji ca kanamu baar bi ci lu ni mel lu soxal leneen ci xibaar euh, ay euh, matière mathématique histoire géographie wala sax lu demee ni kon euh, science chapitre yoo xamante ni ci biir classe yi ba tey ji kon gisaguñu ko loola waral ñii di ay candidat ci BFM nekkee ca CM Mamadou Ndiaye fii la ci am ni nag ñoom njàqare la ci am ñenn ñi nag ngir bañ surprise ci yooyu examen ay cours particulier lañuy ñuy def wala heure supplémentaire reportage Pape jaaxle moo nekk ci bopp élèves yi nekk ci CM El Hadj Mamadou Ndiaye bu Wakam ba fu mu toll nii seen programme bi jeexalaguñ ko rawatina nag ci mathématique ak histoire géographie. waaw am nañu retard retard si mat ak si histoire yenn leson yi moom léegi mu jeex. ay dogal yu am solo école bi jël ko ngir dimbali élèves yi waaye yenn ci ay professeurs ñoom duñu ko jëfee. jël nañ ay matuwaay pour que ci weeru koor bi ñu def ay cours. pour ñu jeexal programme bi daal instant bi prof ñu ngi jël ay dispositions pour que ñu eggali programme bi avant que examen yi ñu koy entamé. jàngalekat bi di yëngatu ci wàllum physique chimie ne xale yi jarul ñuy tiit. yaakaar nañ ne dinañ ko jeexal am nañ ci yaakaar yaakaar nañ que dina jeex euh, avant même mois de juin élèves yi dinañ ci génn dinañ ci génn bon si les sujets effectivement sont abordables dinañ ci génn parce que examen blanc bi ñu mujj gis nañ ne taux de réussite bi c'était acceptable que amoon na cinquante pour cent. yaakaar naa daal jaruñu itam mën nañ jàpp daal ne pare nañ ko examen BFEM bi ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet bi ñu dëgmal boobule diplôme nag xale yi ñoom ñëpp moom la ñuy gént am waaye de war nañu gën a góorlu ndax bés ba ñu daal di mën a jàkkaarloog épreuve commandant groupe euh, d'incendie groupement d'incendie et de secours mu ngi sàkku ci sapeur pompier yi fële ci diwaanu ko euh, Louga ñuy wuyu wooteek ñi nga xamante ni kon euh, ñoom ñoo di askan wi di taxaw ci intervention yi na mu gën a gaawee loole nag waxtu woo xamante ni ña nga doon dalloo ay ambulance kon médicaliser conseil départemental ba moom nag moo fa jaar ci wàllu ndimbal ñu fekk ji fa Thierno ngir jàppale leen ci seen liggéey mu aju ci taxawu askan wi faral di loru ci yoon yi ak itam ci yenn jéye yi ONG amaat ci njàppandalu conseil départemental bu Louga ñoom daal dina ñuy may sapeur pompier yu Louga ab ambulance bu bees tàq. ce matériel vient à son ambulance bi jamono yi mu ñëwee ci lañ ko gën a soxla ndax dafa tombeek ñuy xalaat nu ñuy def ba renforcer capacité sapeur pompier yi ngir gën a mën a taxawu askan wi aar leen aar seeni alal moo tax nag tey jii jumtukaay bi nga xamee ni conseil départemental. Fall jël na jébbal ñu ko ñëw na ci waxtoom njiital sapeur pompier yi daal di nay ñaax ñi nga xamee ni si ñoo di ay ndawam ngir ñu gën a góorlu ci taxawu askan yi nga xamee ni si dañuy faral di aajowoo wallu à travers ce don de matériel ak ambulance bi nga xamee ni jébbal nañ leen ko nag seen warugar mooy ngeen daal di taxawu askan wi fépp fu ñu leen soxla muy guddi mbaa muy bëccëg muy taw mbaa muy naaj ngir nag ngeen mën a wallu bépp doomu aadama bu nga xamee ni si nar naa jànkonteel ak ay jafe-jafe loolu rek mooy mën a tax ngeen mérito teraanga ji nga xamee ni defal nañ leen ko don yi nag ñu ngi ko amee ci ab lëkkaloo bu dox ci diggante ONG Amar nekk ca Espagne ak conseil départemental bu Louga. accident yi bari na te ay accident mortel rek lay en tant que président ma xalaat ni war nu jàppale sapeur pompier pour mu am di jumtuwaay ndax jàpp nañ ni nguur gi mënut a def lépp te nguur gaa ngi def li man te mi ngi def lépp it waaye ñun it suñu warugar mooy ñu taxaw à côté de l'État jàppale ko. cérémonie de remise bi nag ñu ngi ko amale woon ci conseil départemental bu luga ci njiital gouverneur de la région. waaye itam ci teewaayu askan wi ak itam ay kilifa yu bari yu fekk baax fii ci diwaanu Louga. koor gi ñu nekk kon ci waajtaay yi ay fan yu néew euh, des ci supermarché yi ci wàllu woowu euh, des suñu euh, ginnaaw ña ngay waajal ñoom it di daal di fésal provision yeeg yu ni mel waaye ngir attirer ñi nga xamante ni ñoom ñoo di client yi xëcc leen ña ngay siiwal ni dañuy wàññ yenn saa téeméer bu ne ñu tegg ca lu demee ne ñaar fukk ak juróom client yi nag taxagu leen a ñëw dem sax ñenn ca ñoom ña ngay doxantu xool kon fu fa yëf ya toll reportage waaye Satou Bay Fall boo duggee ci yenn supermarché yi mu mel ne nag nit ñi bëreeguñu di ñëw di jënd si fii ci casino wu Almadi mu mel ni ñoom pare nañu pour door koor gi rayon yi ñu defar ko ba mu rafet mu ñu dem ba wàññi produit yu bari préparé bu baax déjà yokk nañ suñu stock yëpp du si mel ni suukar tàndarma meew bon chocolat en poudre yëpp yokk nañ ko ba pare wàññi prix yi tamit. bon daanaka ñaar fukk bu nekk wàññi nañ ci juróom. maanaam lu doon doon jar lu doon jar euh, ñaar téeméer de def nañ ko 800 francs ci nag si rayon bi ñuy jaayee jën ak i crustacé mu mel ne njëg gi kenn wàññeeku ko. actuellement li tax yàqaguñu defaguñu promotion bi euh, dañuy xaar deux deux jours trois jours déjà préparé nañ ay tafi taplu tafi affiche yi pour préparer euh, promo bi. deux jours trois jours après ñu def affiche bi pour wàññi prix euh, promo poisson coof carpe rouge surtout les grands poissons comme ça ak euh, les fruits de mer. ñu naan def 100 kilos dañuy def à 200 250 kilos de tous les poissons de tous les variétés. parce que ak deux jours trois jours après dañu am énormément de clientèle. Aïda Diallo moom nag mi ngi ànd ak doomam bu jigéen ñëw di wër di xool ndax am na yoo xam ne jot nañ ko wàññi. ñu ngi jéem a pare ñu ngi ñu ngi jéem a xool. prix yeeg yooyu yu am yu bees yeeg ci loolu la ñuy jéem a xool daan waa promotion bi disons plutôt produit bi voilà li ñu am lu bees yi ñuy am yi intéressé xale yeeg mag yeeg yooyu daal c'est ce qui fait plaisir bërëb yi dalal ay njaay ak supermarché yi pare nañu ngir dalal weeru koor gile ngir yombal te dalal bu baax seeni client ci weeru koor gile ñu des ci li nga xamante ni kon moom moo di weeru ko koor wi ngir nag client yi xam bu baax nu ñuy tànnee wala euh, bañ leen euh, kon fàtte gis nañu ay panneaux publicitaires yoo xamante ni euh, ñenn ñi kon ñu ngi koy daal di teg ci dëkk bi ngir teew fesal rek seeni produit produits di ci ñaanalaale kooru ko jàmm ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi ñoom ñoo ñee nag mbir mi gis nañu ko bu baax dana leen may ñu xam boo lëggee fan lañuy ñuy jubal reportage Mame Biram Diouf ci wàccaayu weeru koor wi ay jumtuwaay ak i pexe yu nekk am ñu koy def ngir gën a jege askan wi di leen dalal jàmm ci weer weeru tedd wi di bëggalit ñay teg seen gët ci mbind yi damay xool pap tableau yi bu baax a baax parce que en général soo ko rombee sama ñu def la bon ramadan muy weer boo xam ni mooy weer bi gën a sell si weer yi bi gën a màgg si weer yi muy weeru koor kon vraiment sama su ma gisee tableau bi ñu dessiné si loo xëy ni lépp lu jëm si wàllu weeru koor dama si am fierté bu baax a baax a baax. tableau bi moom boo xoolee moom day tax nga gën a mën a waajal weeru koor bi quoi sa xel sax dama ni yow da ci gën a dem quoi. jàllale seen i kaddu jaarale ko ci panneau publicitaire yi di wax kooru jàmm ndax annonceurs yi dinañ ci def koppar gu takku. mais nekku ñu ne c'est parce que weeru koor la que sa liggéey li nga bëgg ñu defal la ko c'est gratuit c'est toujours payant toujours même prix bi ñuy fay ci bu nekk weeru koor wala bañ weeru koor même prix bi la. muy xamle ni li mbind yi di def ci nit ñi bu weesoo loolee am na leen luñ ci séentu muy rek jaay seeni produit nga gis affiche bi ñu de bon ramadan euh, nous vous souhaitons bon ramadan c'est c'est réconfortant et puis su fekkee ne aussi publicité bi ci nekk ça intéresse la personne ça passe encore mieux. am na leneen loo xam ni moo si laxas si ginnaaw tax entreprise bi di def panneau yooyu waaw muy maanaam genre publicité en même temps di encourager nit ñi di jaay marchandise am. màggal weeru koor wi panneau publicitaire yi di ci indi seen wàll ak mbind yañ ci xaatim doon lu am solo. naa si dëkk bi moom dafa na trop. ñu jëm ci lu soxal bitim réew gis nañu ni kon fan yëpp bàyyi nañu ko xel rawatina kon ci bis yi ñu génn avion bu président Soudan jàppale ni nag mujj na jóge ca Johannesburg fële ci Afrique du Sud loolee sànq la woon Omar El Béchir moom moomee nag dañu ko tere woon mu génn réew ma ndax mandat international la ñu tegoon ca kawam ba mu fa àggee ci ndaje mu fa dajale woon njiiti réew États-Unis dogaloon na kon mu des fa ñu mënee ab l'enquête waaye Euh, mandat d'arrêt bu cour pénal international boobu yitteelu ko ba woon na ca Johannesburg dellu ca dëkkam Chérif Dia. ca Afrique du Sud buñ sukkandikoo yenn fa nekk RFI ak France 24 cité leen avion président Omar al Bashir jóge na ci réew ma daal di naaw dem. moom nag ma nga jóge rek foofa ca capitale ba di Johannesburg ginnaaw ba ko yoonu réew ma teree mu daal di génn foofa ca Afrique du Sud loolu mi ngi am ci benn plainte bu ab ONG sud-africaine daal di déposé woon nguur ak Afrique du Sud rawatina yoon daal di jëfee ñaari mandat d'arrêt yi nga xamante ni Cour pénale internationale gàll ko ci kaw njiitu réew Soudan muy ci atum 2009 ak 2010 ñu ngi koy tuumaal ne moom loxoom génnul ci faatu lu toll ci ñetti téeméeri junni doomu aadama yu gaañu foofee ca Darfour coowal Omar El Bachir tax ñu fàtte sommet Union africaine ba amoon foofee ca Pretoria ca Afrique du Sud justice su Afrique du Sud ñoom démb la ne woon daañu càmbar mbir mi maître Sidiki Kaba di président assemblée générale des états partis nekk foofee ca cour pénale internationale moom it ci communiqué samedi bi sàkk woon na rek ci Afrique du Sud ñu daal di jëfee xaatimim xaatim ci wàllu bitim réew ba tax ñoomit maanaam ñu daal di tere Omar al Bachir mu daal di jóge ci réew moomee wante buñ sukkandikoo ci kilifay Soudan ak tamit ministre zimbabwéen des affaires étrangères nee na président yi dañoo am immunité maanaam mbalaanu kiiraay boo xamante ni day tere yoon daal di dal seen kow waa États-Unis tamit dugg nañu ci wax ji ndax ñoom it ñi ngi sàkku ci Afrique du Sud mu daal di jëfee moom it lim xaatim ci wàllu bitim réew tere Omar El Bachir mu daal jóge ci réew ma mu mel ni kon loola Afrique du Sud jëfewu ko buñ sukkandikoo ci xibaar yi ne avion ba jóge na ci réew ma dem ñibbi. N'Djamena di capitalu càdd tey jii ci altine ji ay explosion lañ fa dégg muy ay attentat suicide yoo xamante ni ña nga am ca wetu direction de la sécurité publique ak commissariat central wante tamit école de police buñ sukkandikoo ci ministre de l'intérieur bu càdd nee na amul benn sikki sàkk ne action yooyu ay kamikaze la maanaam ay nit yu jël ay ndend takk ko seen yaram ngir mu exploser jamono ji amul benn organisation bu revendiquer lii bu fekkente ni sax ay njort ñi ngi dem ci rek Boko araam nga xamante ne ba càdd dugoye ci xeex leen ñoom waa Boko Haram ñàkk nan ay soldaa yu bari ca Libye gouvernement ba ñoom ñoo annoncé ci benn communiqué ne kii di Maktar Belmaktar faatu na ci benn cong goo xamante ni ay drone yu Amérique daal di lancé foofa ca Libye ñoom nee nañ frappe américaine yooyu ñu ngi vise rekk chefu jihadiste boobu di Moctar Bel Moctar nekk ab algérien loolu mu ngi am ci guddik di jàpp dimanche. waa Pentagone di kër ministère défense bu États-Unis génn benn communiqué daal di ne faat nañ ki jàppoon otage ya nekk ci benn site gazier ca Algérie ci atum 2013 wante firndeelul ne Moctar Bel Moctar lam am armée israélienne daal di génn benn rapport ci dimanche ji ngir rek daal di wax li nga xamante ni jëfee noon ko ci atum 2014 maanaam congu gan songoon Gaza congu googu nag la fa faatu woon ci ay palestiniens rawatina ay civil seen ab lim toll ci ñaari junni ak ñaar téeméeri doomu aadama. rapport boobu lim xamle mooy ñoom liñ def fu wér lañ ko teg te amul benn yoon bu nu salfaane ak ak yelleefu doomu aadama muy rapportu ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaari page. wante loolu ONG yi nga xamante ni ñoo déposé woon plainte contre l'armée israélienne moom àndoon ci ba léegi ñi ngi sàkku rek ñu daal di yóbbu ci yoon njiitu Israël ak armée ba nga xamante ni ñoo doon amal cong googu ci kaw waa Palestine rawatina ña dëkk ca Gaza ci atum 2014. nata tàggat yaram euh, mën nañu yéene ànd ak gan gi Abdou Latif Aïdara ci mbir moom Al Bachir muy enseignant ci centre d'étude euh, de stratégie waaye kon mujj teew ñu ci euh, jégalu yegg si nag ci xibaar yu soxal kon wàllug tàggat yaram volleyball Sénégal mujj naa kon dóor Maroc tey jii la doon amal kon ñetteel ak jonganteem bu mujj match de poule mu ci doon jàkkaarloo ak Maroc daan na ko kon 3 7 à 2 ba waral daan nay qualifié kon gaynde yi nag. seen euh, jongante kon euh, yu njëkk ci match de poule yooyu Cameroun lañ njëkk a daan 3-7 à 2 euh, daan it Tunisie même score 3-7 à 2 ca poule B la bokk ci yooyu compétition mu mel ni kon mujj nañoo qualifié kon ci quart de finale championnat d'Afrique volleyball yooyu lu soxol ba tey wàllu kon volley ak Ligue de Dakar ñoom organisé woon nañu seen deuxième édition tournoi des quatre grands loolee nag ñu daal koy jagleel kon trophée président section volleyball bu AS police commissaire Serigne Diop mu mel ni kon AS police ci góor comme ci jigéen ñi ñoom ñoo ca mujjee daan ci jongante kon ni leen boole woon ak Dakar University Club Pape Cheikh Diack AS Police ci góor ñi comme ci jigéen ñi moo jël ñaareelu édition wu de des quatre grands bu Ligue de Dakar bu volleyball di amal loolu bi mu toogee lu toll ci fukki at bokkul ci élitu volleyball bi. te dafa doon initiative boo xam ne day gën a dundal volet à Dakar. volleyball surtout police euh, toogoon nañ ay at yu bëri participer wuñ ci championnat bi te ren dañoo doole. ren ren dafa fekk ni euh, directeur général dafa taxaw jox ñu ay moyens pour vraiment sport gën a développé wu ci police. coach digg bi nag mu ngi réccu li mu ñàkk match bi waaye fas na yéene dabu. am na faay côté défense euh, tactico technique bi bon xam naa peut être bu ñu delloo dinañ jéem a xool lu ñuy def ko parce que peut être jël naa statistique yi xam naa fan moo doxul ak fu dox. naataangoom bu AS police xam le ñu ne police defagul dara lii tàmbali bi rek la. mais xale yi xam nga xale yi depuis xale laa leen gélee ma leen di former ñoo ñoo nekk ak man ça fait plus de plus de vingt deux ans maa ngi liggéey donc defe naa ku liggéey dina am résultat. donc ambition yi mooy ci kaw rek ak ci kanam. ci góor ñi comme ci jigéen ñi AS Police moo daan Dakar Université Club ci score ñetti set ci benn édition bi nag parent bi moo doon commissaire Serigne Diop di président section volleyball bu AS Police. ñu wéy ak wàllu ko football 23e journée Ligue 1 kon US Wakam moom Guédiawaye football club daf ko mujj daan benn bal ci dara ñaari tali daan Linguère ñaar ci benn Casa daan Mbour Petite Côte 3 buts à 0 Stade Mbour moom AS Pikine moom moo ko daan ñaari bal ci dara Jàmbaar AS Douane daan na ko benn bal ci dara altine ji nag fukki fan ak juróom ci weeru juin programme bi ni lay tëddee ca Stade Demba Diop bu ñeenti waxtu jotee Port ak Suneor laale euh, juróom benni waxtu Ngor ak Jaraaf ñoom ñoo fay laale euh, gannaaw match yooyu ñu daal di junj sànq classement bi kon ni la demee AS Douane moom moo jiitu ak euh, fanweeri poñ ak juróom-ñeent ñaari tali am 38 poñ jàmbaar yegsi ci ñetteelu palace bi am fanweer ak juróom-benn kon ci poñ AS Pikine moom moo féete ci 13e place bi am ñaar fukk ak benn poñ Port 14 place bi lu toll ci fukki poñ ak juróom kon la gannaaw football lab Kido. JO quatrième édition euh, compétition bi amal euh, nañu ko loole nag ngir gën a fésal kon euh, discipline bi organisateur yi ni dañu bëgg dem ba bi nekk kon lu national soxol réew mi yëpp waaye xëy na loole lépp la koy gàllankoor moo di yenn ci jafe yoo xam ni ñu ngi koy dund Pape Fara Gningue ay yi ku ci ne di ñafe ak sa moroom weq daal di dóor kur ngir mën a fexe am médaille wala sax ab coupe boo yóbbu ab kido di xeetu tàggat yaram boo xam ne dafa wuteeg yeneen yi. fekk ab kido lépp ngay def da am pied point da am combat au sol lépp ngay def daal am clé self défense. ñeenteelu édition compétition nationale bi bi leen ndaje nag tax ñu mën a wone li nga xam ne ñoom moom lañ mënee. dañ def tournoi bi pour def promotion ab kido waaw pour ñu xam ab kido parce que ab kido bi pratiquement ñu bëri xamuñu ko. nañ fi douze salles fi présent. ak plusieurs plus de vingt six combattants ñu nekk ñu ngi fi ñuy jongante waa pour wane seen bopp. ñi di def ab kido ñoom li ñu bëgg moo nekk tournoi bi mu dem ba nekk tournoi national waaye kon yeneen xeetu tàggat yaram yi ab kido yi noo am ay jafe-jafe yu bëri. waaw am nañ am nañ am nañ ay jafe-jafe ndax dañ am problème infrastructure maanaam problème place bu yaatu pratiquer aari problème matériel aussi am nañ ko. ci dossier bi la ñuy yegg si daal di dellu si nag ci loi bi ñu fi jëloon ci wàññi kon njëgu ko luyaas bi euh, charte woowee jàpp leen ni def na kon attaque genn wàll bañ koo tàmbalee doxal ak léegi li ñu constaté nag moo di kon yenn ci borom kër yi ñoom ba tey ji dëppowuñu ak boobee loi loolee nag waral coow li commission nationale bi topp mbir mi ni jot na ci lu toll ci ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benni kalaame Momar Ndaw xam ne nag ñu ngi ci. Euh, liggéey bi bés bu jot danañu yor lu toll ci juróom-ñaar jàpp juróom-ñetti mbir yoo xamante ni war nañ ko lijjanti ci lu soxal euh, yëf yi mu di dossier Aminata Mbaré saw moo di jóg ci caméra bi. feuille lépp nag ay reçu de paiement la soxna si moo ko moom moom nag locataire la mat na léegi ay at ginnaaw bi ñu wàññi prix bi jëm ci wàllu location boobee ba léegi teewul mu ngi dund lu metti keroog ba nga xamante ni bés bi am na. mayul kenn jàmm sonal locataires yi ñun dundatul dañoo dema dema dema dema dem ba dañoo mujj génn bàyyi koo kër ga sonal ñu ndax génnee ñu rek pour delloowaat prix bi ci mille francs yi mu nekkoon. monté 22 janvier 2014 ba léegi la ñu wàññi prix ci wàllu location waaye teewul moom gisul benn yoon coppite ci fi mu dëkk. fii ma luye nii waa ji bi may jël waxtaan naa ak moom si problème mu wàññi bi mais dafa ne ma carrément man mënuma wàññi sama kër te man mënuma toltolaan ak sama ay njaboot parce que samay doom dañuy jàngi te bëgg naa samay doom jege seen école bi ñuy jànge ndax jamono bi dafa metti dafa naqadi ku jëkk yuuxu rek danga nga ragal kër gi benn ñaari néeg la ak saal ak douche ak waañ cent trente mille francs la ma ko boroom kër gi luye ma wax ka mu ni moom wàññiwul luyaasam ku mën dëkk dëkk ku mënul dëkk jël sa bagage nga dem sa yoon. ñeneen ñi nga xam ni ñoo amee seen kër te di ko loué ñoom tamit jàpp nañu loi bi wàññi na leen lu bëre ci seen i activité non perte bu mag lañ ci am ñun fu mu ne nii ba ba wàcc bi amee parce que boo xoolee eh, benn chambre vingt cinq mille nga loué ko euh, dix sept mille trois cent cinquante kon donc su fekkee ne bees boobu am na da il faut que yow nga jéem a seet say emploi yi nga xam ne moom nga am nga wàññi ko. mu jiite commission nationale de suivi ci wàllu location boobule jàpp na ni loi bi ñëpp appliqué nañ ko ni mu waree. waaw euh, au début commencement bi amoon na à peu près 4666 euh, réclamation yoo xam ni mais nag boo ko xoolee ci 196 euh, 400 logements du du dara bariwul ah mais boo xoolee. actuellement li ñuy jot ci ay ay réclamations à peu près entre environ sept ak dix daal la ñuy jot par semaine. Mm-hmm. c'est-à-dire près benn réclamation par jour quoi. à wàññeeku na bu baax a baax a baax a baax ndax léegi nit ñi yeew nañ. ci 4666 contentieux yi nga xam ni enregistré woon nañ ko bi ñuy door a commencé tey ji jàpp ni wàññite gu rëy daal dina ci am loolee waral sax numéro vert bi ñu amaloon fëri ci commerce intérieur daal nañ koy dakkal. Aminata Mbaye Sow ñu koy euh, gërëm gannaaw dossier bi daal di dal ci yéenekaay yi li ñu xëyatee ji ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yi Idrissa Seck borom 7 pour cent ci 6 pour cent la jëm këram gaa ngay jeex waa kër gaa ngay roñuy dem rek maître Nafissatou Diop ca moom la ne woon dem na Omar Gueye ca moom la ne woon dem na Pape Diouf ca moom la ne woon dem na gannaaw ñooñee am na keneen ku demati mu di Omar Sarr ma ne woon porte parole ba delloo na ko parole ma ko parteem dem yoonam ubbil enquête moom Omar Sarr journal bi nañu dem na te du moom rek a ne ñi nga xam ne ña nga woon ci parti bi Idrissa Seck bi te gisuñu seen bopp ci ni parti bi doxe ku ci mel ne Waly Fall ma ne woon jamono secrétaire national bu parti bi ba mu géddee ca parti boobee Omar Sarr ba muy dem da ko yóbbaale te yemul ci ñooñee ni kii di Oulimata Ly nga xam ne bokk na ci ñuy sos parti réew mi ak docteur Alassane Ndiaye ak Moussa Diaw Dieng Omar Sarr daf leen a yóbbaale waat ñu jëm moo di taxawal kuréel goo xam ne dafay defaraat parti réew mi tegaat ko ci raay bi ndax nee nañu Idrissa Seck ci bopp réew mi moom doxul réew mi doxul démocratie amul ci bànqaas yi réew mi Omar Sarr nañu ci biir journal bi yéenam yëpp moo di jëlee Idrissa Seck ci bopp parti réew mi populaire nañu GR réew mu di groupe pour la refondation du parti réew mi la ñu taxawal li leen indi foofu foofee yéen a kaay bi nañu bokk na ci li ñu ci biir parti Idrissa Seck bi mu di militant yi nga xam ne ñoo newoon ak Idrissa Seck démb ak bërki démb ba dara dul dara ñu doon ànd ak moom militant yooyee dañu leen a ginnaawal joxuñu leen cër fullaa lu ñu leen faydaa lu ñu leen ci biir parti bi fekk ñoo xam ne ba ñu yegsee ci parti bi ñii 2010 la ñu fa ñëw ña ca des 2012 ñoo ñee la ñu a fullaal lii tax leen ci militant gis seen bopp ci biir parti réew mi dem ànd quotidien di laaj ndax tëbal gi ñu bëgg a tëbal yi Idrissa Seck ci boppu parti réew mi ndax dina am grand place dañu li am ba des daal moo di Omar Sarr def na ko Idrissa Seck bu doon ab xeex la ne kurpañam dal na waaye Idrissa Seck nag faalewu ko Thierno Bocoum bokk ci parti réew mi ni ci xët mu njëkk journal bi li ko leer ba leer ko moo di Omar Sarr li ko ngemb ba tax mu doxalee nii ma nga jóge ca palais ba Macky Sall nekk ci ginnaawam di a xët mu njëkk observateur bil journal bi présidente mouvement national des femmes parti démocratique Sénégal ne nu Modou Diagne Fada mbooleem lu mu wax ci PDS rek dëgg la jooy yi mu jooy keroog moom Awa Diop nee na observateur li ko waral moo di tuuma yi Farba Senghor teg ci ndoddal Modou Diagne Fada sosalaati gi ci biir parti démocratique Sénégal la ñu a bàyyi nañu bàyyi di sosal nit ñi man mii di wax ak yéen fii la ma fi sosal bëccëgum dara kàmm a bi moo fi jëlee Idrissa Seck sosalaate bi moo fi jëlee Macky Sall Awa Diop nañu ci l'observateur ngora ngi bëgg a jóge ci PDS te li mu gis nag ci biir parti bi kuy jaaxle war ngaa jaaxle parti démocratique Sénégal ak li ko ci jaaxal jaaxal na Karim Wade observateur ñu moom Karim Wade donte ma nga ca kaso bu rëba sit terewul lii xew ci biir parti démocratique Sénégal ump ko yitteel na ko ne kilifa yu ko seeti woon ci rëbës googe li mu leen wax moo di Modou Diagne Fada ko waxal keroog ak ni ñu ko doon yegg ci di ko dàq na leen ne PDS jamono ji ji moo di loxoom ñëpp na ñëpp booloo unité la soxla Macky Sall bu soxlaa Djibo Leyti Ka ci wetam du desee ci waa Linguère yéen xët mu njëkk direct info keroog ba ñuy daloo barab yu Sonatel ak Macky Sall ak la mu fa wax Djibo Leyti Ka ba di ko tàllal loxo yéen a kaay bi nañu ci diwaanu Linguère ña fa fare tey jàppal tànk pël bu rafetoon di Djibo Leyti Ka ànd nañu ci Djibo dem ànd jeeg Macky dogal la boo xam ne ñi ko jël ci assemblée générale boo xam Macky Sall koy song Abdou Latif Coulibaly ma ngi koy défendre réew réew maa ngi ci dansé li andi woon wax ja di dog dogi courant yi grand place nañu njiitu mi ma ngay yëgloo nee mënuñoo nekk ci réew moo xam ne courant ba seer na ba nuppi askan du ñu gis courant guddi du ñu gis courant bëccëg loolee bu amee cim réew réew moomee askan wa dara mënu leen a tee wàcc ci mbedd mi te bu ñu wàccee jàmm jeex njiital Senelec di Pape Dieng ci xët mu njëkk populaire ma nga fay leeral li indi dog-dogi courant yi Senelec ak jéego yi muy def ak yéene ji ñu am ngir jox askanu Sénégal courant bu doy li doy te dalum xel moo di waxi Cheikh Kanté yi ci observateur ubbil journal bi Cheikh Kanté nee bu ñu yeggaatee Faye ci meeting bopp Fatou Faye mi jiite mareyeur yu jigéen ci Sénégal moo ko organisé woon observateur nañu fitna ja ñu fa doon joxtu ci ne ndawi APR dañ doon salfaañi meeting boobee yëf yi amu fa jàmm ak fa amoon mbooleem commune bu nekk Sénégal dana fa dugg dugg fa ko nag ngir di salfaañe parti bi gaynde yu ndaw yi ñu ngi ci demi finale yi gaynde yu mag yi mu di gone Aliou Cissé yi keroog ba ñuy daje ak Burundi ñetti bal ci benn waaye daan boobe boobee jaruta bàkkoo ndax ni ñu ko defee dara ci rafetul li ñaw ba yegg ca mu ngi ci xët mu njëkku la Sénégal ci diwaanu Njaareem journal bi la ñu fanweeri xale ak juróom-ñaar yu góor ak yu jigéen ñoo tàggoo daayira daje ci benn barab doon fa organiser soirée bombas ba leen police yëgee soirée bombas ba commissariat la teere ji ñu koy gërëm di ko sant moom Mamadou Mohamed euh, Ndiaye daal yem fi kon ci xibaaru digg bëccëg incha allah rédaction bi dana dellu si 19h30 ak 20 ci yeneen i xibaar lay euh, doon fii ak euh, boobu programme bi nu muy tëddee ci télévision Futur Média biir permanence la ñu koy leerale ak Kebs Thiam Kebs ma lay nuyu. soxna Ngoné naka eh, weekend bi. non ça va ça s'est bien passé non mi ngi refléter sa visage sax. Ah, képp su bàyyil <laughs> en tout cas kontaan nañu bu baax léegi boo paree rek ma jël li nga xam ne mooy relais bi ñëw ci permanence. incha allah kon ni mu ko waxee léegi léegi lay doon ñu wax rek xibaar bu fi daanu si léegi fële ca Tchad ñame na benn attentat bu ñu fa amal keps ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñoom ñoo ca faatu kon mu di lu mit ci dinañ ci dellusiwaat incha allah ci suñu yeneen i jokkoo ni ko waxee. Afrique jëm kanam di ko gërëm kon ñu yendu jàmm ci télévision Futur Média